été di leen nuyu bu baax a baax internet yi ñuy topp national ak international comme ni ñu ko waxee rek combat bi jàll na le premier janvier diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier B52 de Mbour waaye coow li nag laat naa tomb topp ñaar ñi xam ne ñooy mbëree bëri woon rawatina kii di Balla Gaye numéro 2 ginnaaw moom la jee ci combat boobu ñu toog kenn ci nga xam te ni mooy fan sa Balla Gaye xaritu Balla Gaye waaye jege ñaayee Balla Gaye di Baye Fall li ñu koy ko mu nuyu internet yi ñu waxtaan ak moom ci combat boobule Baye Fall maa ngi lay nuyu. waaw Ndeye maa ngi Euh, téléspectateur Leewtoo yëpp di char euh, personnel bi ma fekk yëpp man lay char di nuyu waa Géejawaay baax baax waaw di nuyu sama champion sama mbër Balla Gaye di nuyu sama yaay nuyu sama papa maa ngi nuyu famille yëpp ak képp kuy fan su Balla Gaye maa ngi lay char mhm. ak foo mun di nekk di la bëggee mhm. waaw ayca képp kuy fan si Balla Gaye numéro mu ngi lay ziar waaye man tamit képp kuy béggee Balla Gaye 2 waaye képp kuy béggee B52 de Mbour maa ngi lay béggee a bëri na woon ay coow laataa ñëw ci combat préparation bi ni Balla Gaye préparé combat bi dem extérieur demaat ndax nga ko gisee. waaw nday euh, coow li dafa bëri sax. foo tourné ku nekk ngay wax. balaa ñëw ci Balla balaa ñëw ci coow li avant coow li am na lu ko waral. waaw lan lan préparation waaw Balla Gaye comme ni mu doon préparé rek def na comme ni mu doon def dem extérieur entraîné ñibbisi contact comme mbër comme mbër yëpp ni ñuy def rek. comme pré ni mu defe naa ni mu préparé combat combat bi mosu koo préparé combat parce que combat bi dañ ko njëkk a jàpp. Mhm. mu dem entraîné ñëw ñu fomm ko mu demaat. Mhm. kon nu mu préparé bi mosu koo préparé ci làmb. Mhm. daj ci lu metti nag lu ñu wax luñ mën a wax ak luñ mënul wax lu metti laa lay wax. da ci daj. waaw moo tax nit ñi bu ñuy wax dangay ngay da ngay da ngay xam rek noppi. mais da cee daj lu métti. ayca mu daj ci lu ñu métti ci préparation waaye jouru làmb ji ñu ñëw gis Balla Gaye foot bi mu àndal ànd ak confiance ànd ak gëm jàpp na bu jàppee kii di Bombardier da koy daan waaye mbooloo bi ñu gis mu topp Balla Gaye ci entourage am yow ak tant que amateur naka gisee. Ah, mbooloo bi gis nga nday gars yi dañoo baax di wax rek Balla Gaye ba muy bëri Gris Bordeaux amoon na mbooloo waxuñu ko parce que victoire moo ñëw ba muy bëri mbooloo bii paase. Mhm. am na mbooloo. Mhm. na mbooloo mais nit ñi. defet bu ñëwee rek defet ñëw na. Mhm. mais Balla Gaye yàgg naa bëre di indi mbooloo. Mhm. xam nga arène nationale dafa dafa dafa dafa tuuti. Mhm. léegi ñi ñooñu rek day day day kii sa bët. day bëri si bët day bëri si bët. mais Balla Gaye yàgg naa ñëw di bëri di indi mbooloo. defet moo ñëw waaye mbooloo dafa balaa defet dafa dafa am lu ci raxaale wala du ma a sax li ci beesaale ñi gis ku mel ni euh, indexé wu ma ko waaye ñaaxarañ loo. waaw mosuñu ko gis ci staff Balla Gaye gis ko fa ku ci mel ni ñu ci bari daal ba ci amat ay sax gis nañ ko ci staffu Balla Gaye mën naa ci cumukaay bi lan d'accord d'accord ñaaxarañ la da ko gis mu yor biteel déedéet mais ñaaxarañ la yorul biteel te ñaaxarañ la daa am fu mu yem mhm. nit ñi laa wax defet moo ñëw rek nit ñi di wax mhm. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 nangam ñaaxarañ loo buuse nangam nangam mhm. buuse ñaaxarañ la yoruñu victoire yoruñu defet si gis nga mbër mi xol xol bi moo yaatu te rafet rek moo tax ku mu jot rek dugal la dugal la sa biir. mënul bedd kenn. mais ñaaxarañ loo yorul yorul biteel sottiwul Balla Gaye jegewul cumukaay yi. keneen ak keneen ak keneen yaruñu ko. suñu borom moo ñëw. defet am. na nit ñi gëm loolu Balla Gaye ñaata combat la bëre daan. Balla Gaye xoolal li mu def ci arène bi yombul mbër bu ko def. nit ñi defe naa dañuy fàtte quoi. Mhm. maa ngi gis ku nekk a ku nekk a ngi toog nag wax ku nekk a ngi wax ndax defet benn defet rek nga daanu ci daanu boo xam ne yow da ngaa ñëw bëri buñ nee bëri da ngaa bëri ba dee yàlla def li da yàlla def li li gën après nit ñi commencé ku nekk di ubbi làmminam di wax Balla Gaye nàngam ak Balla Gaye wul yow kii bàyyi njabootam bàyyi léppam bàyyi njabootam bàyyi léppam ginnaaw jël xaalis bu weex tàll xaalis bu weex tàll dem France entraîné ba ba bëgg a dee ñëw fii bëri yàlla may Bombardier ndam nit ñi commencé koo xarab Balla Gaye deful nàngam ba non dafa ëpp nag. dafa dafa ëpp liñ koy liñ koy tiñal ak dafa ëpp ku nekk di ku nekk ak fu fu la neex. caméra yi dëpp la rek nga commencé wax. Mhm. non Balla gis naa ci benn xaw ma xaw ma mbër la woon xaw ma la. Mhm. léegi kii la. chroniqueur la waaw. xaw ma Fadam xaw ma kooku man maa ngi koy soog a xam ci affaire yi bu fekkee mbër la woon lan la fi def. Mhm. def fi dara. benn nga bëgg a benn Balla Gaye boo xam ne def na fi lu ne nga bëgg koo critiquer defal nangam def nangam ak nangam. non il faut waaye ñiy dégg ci kàddu yi ne ñi naan Balla Gaye numéro bi mu jàkkaarloo ki xam ne mooy Bombardier na ci moom loo xam ne nekku woon ci moom maanaam Balla Gaye numéro ñu ne amul contact ci moo tax combat bi metti ci moom loolu képp ku koy wax c'est faux loolu amul mais Balla Gaye 2 professionnel bu toll ni moom nga juddu ci làmb xam làmb xam làmb nu muy demee yow di nga jub ci combat bu toll ni comme contre Bombardier nga ne yow doo contact loolu xel xel xalaatu koo nangu. Mm-hmm. ñun ñu dend ak moom xam nañ. mais loolu xel xalaatu koo nangu Balla Gaye 2 yabeewu ñu noonu sax. bay bëri ponkal bu toll ni Bombardier nga xam ne dafa compétir. yow nga yow doo contact loolu amul loolu nit ñi ñooy wax mais Balla Gaye 2 arbitre ba mu soufflé. bu fekkee Balla Gaye arbitre daa soufflé Balla Gaye 2 taxaw nit ñi dinañ commencé wax non Balla Gaye 2 xameewuñu ko woon lii kat nangam ak nangam mais arbitre dafa soufflé mu taxaw tu déglu ko dem song. bëree ba dee daan ñu daan ko léegi nit ñi commencé wax Balla Gaye 2 nangam ak nangam kon ñoom léegi Sénégal lan lañ bëgg. lan lan lañ bëgg kii dafa bëre ba dee. xoolal jomam ak fitam ak ngorom moo ko may lool bu bu neexoon day ñëw gaa dañ koo daanoo mais bu neexoon day ñëw téye boppam comme Bombardier mais defu loolu. xoolal Balla Gaye li mu indi esat xoolal li mu indi esat kan moo ko mës a indi esat ànd ak fans club yi gars dal. gi policiers yi su boobu amuñu coono. amuñu benn coono. dàq àttewuñu xeex dàqewuñu dara. ñu daan seen bër ñu jug ànd ak moom ñibbi kon kooku doo ko sant. Mm-hmm. ñëw ambiance bi am stade keroog kan moo ko ba arène nationale nekkee arène nationale ba léegi kan moo ko fa indi. Mm-hmm. benn moo ko fi indi ambiance bu fa am léegi nit ñëw na changé indi leneen ñu ne non warul indi lii lii lii bokkul ci làmb. waaw kon léegi waaw mais léegi kon lan lay wax ci lan lay wax lan mooy ambiance. Mm-hmm. làmb defe naa loolu lay laaj ambiance lay laaj mais Balla Gaye bu ñëwee defee lii ñu ne non warul def bu ñëwee defee lii daan. ñu noppi bu ñëwee defee li daanu ñu noo warul def lii les Balla moom mooy kan ba du daanu. nit ke seen xel day làmb de mooy fa nga làmb daj des fois da nga làmb doo fekk dara. non na ñi delloo seen xel xam ne kii nii. Mhm. nekkul n'importe quoi kii def na fi def na fi lu nekk lu nekk. Eh, gis nga am na loo xam ne weddi yàlla la nag. Mhm. yàlla bu ne waaw nga ne déet mu ne waat waaw nga ne déet da lay avancé. Mhm. Balla moom bu yóbbu xoolal. nañ sant ñu ngi sant rek nañ sant yàlla day semaine bii sama xol bi dafa naqari. bu ko naqari. non damay taal internet bi façon nit bu nekk kenn fu ñu jógee ku nekk jël micro wax nangam Balla Gaye nangam Balla Gaye mais comme si Balla Gaye musul bëri musul def lu baax. jàpp ne Balla Gaye fu mu ne nii état bi mu toll sëtatul ndam waaye business lay xool maanaam xaalis lay wut ci làmb ji. kan mooy nekk ci la waaw dama léegi benn kan moo nekk ci làmb ji nii di takk ngem te utoo xaalis nañ bàyyi wax jooju wax bu yàqu la. képp kuy tax ngemb da ngay wut képp kuy tax loolu wax bu yàqu la du xaalis fii képp ku kan mooy ku tax ngemb nga da ngay xaalis Balla Gaye li mu waroon def ñun buñ goree rek ñun buñ goree rek Balla Gaye wàccee nañu parce que indil nañu façon ndam lu nekk lu làmb ji di rëy ñetti mbër ko fi ñett Issa moo ko daan Bombardier ñaari yoon ëma ñetti mbër kon kooku nekkul ko ndaw nañu nañ ko nangul nañ génne li nekk seen xol nañ ko génne nañ bàyyi doomu jàmbur doomu jàmbur la. léegi yow yow en tant que amateur da nga jàpp ne jour boobu moo tax Balla Gaye amul dara ci Bombardier. nday noonu nga jàpp ne moo ko manqué jour boobu mënul daan ba Bombardier. yaa ngi woon maa ngi woon bokkuñu de de bokkuñu. bokkuñu nekk moom stade. maa ngi fii toog waaw waaw d'accord lan lan la manqué pour. yow yaa yow nga làmb gis nga Omar. waaw lim indi gis nga état de forme ñi naan ñi naan la muy dem wuti Europe am na fii Sénégal bu ko fekkee ëppale ko fii tax tubaab bi gënuñoo xam nit ñi làmb lan nga jàpp na yow moom moo tere Balla Gaye am yàlla suñu borom yàlla sunu borom moo ko jàpp parce que Balla li lépp lu waroon ci làmb ji def na ko franchement bu fekkee song sonk na bu fekkee dóorante Balla Gaye def na ba def loo xam ne waru ko woon def ci làmb ji. def na ba def jël fa jël na fa coup boo xam ne mënoon na mënoon bu nekkoon keneen coup yu mu jël yëpp. bu nekkoon keneen bu nekkoon Modou Mandé suuf lañ koy foree. non non coup mu jël yëpp billaahi walla barki borom daaru nooree ni coup yu mu jël yëpp bu nekkoon beneen mbër kon naani na kaane bu yàgg mais dafa nekk gor nekk bañkat gis li mu def stade bi mais nañu ñi nañu ñi bàyyi wax yu wax yu ñaaw yuy wax mhm. nañ ko nañu ñi bàyyi loolu loolu baaxul gis nga nit da nga koy nangul li fi li def wax ma ban mbër. ban mbër moo ko fi def. c'est le meilleur de sa génération. ban mbër ñëpp a ko nangu. wa léegi kon ban woo nit ñi duñu arrêté nañu arrêté. fu ne nii ñu ngi jël défaite bi di ko tas boo waxee kii mu ne ñaaxale loo moo tax mu daan boo waxee kii ne Bousse moo tax mu daan boo waxee kii ne kii lan moo tax bu défaite amee ñu koy jël. ba ci Aziz di ko buux kenn. ba ci Aziz de côté Aziz Ndiaye moom bu nee waaw Balla Gaye waaw lay wax bu nee déet Balla Gaye déet lay wax loolu dañ ko tegee de côté waaw bi la wax non non waaye entourage bi ay yeneen wax dégg naa ñaaxari loolu mais nañ bàyyi ñaaxari loolu nañ bàyyi puus ñoom yaruñu ndam yaruñu victoire yaruñu defet li ma la wax rek mbër mi xol mi moo yaatu ku ñëw ku ñëw rek dalay xajal mais nag am na ci benn côté boo xam ne dina ci jàngat moom mm-hmm. waaw parce bu ñëpp waxee tamit il faut nga jël yenn wax yi nga seggaat ko mais ñooñu seen cofeel rek lañ am ak seen mbëggeel mhm. kenn du leen ko kenn du leen kenn ko bañal mhm. ba ci Aziz Ndiaye dégg naa ci Aziz Ndiaye tamit gaa yi naan non Aziz Ndiaye day utiliser Omar ak di cee bëgg nanga Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye bu yokkul Balla Gaye du ko wàññi mais Aziz Ndiaye lan la mën a utiliser ci mhm. Omar Aziz Ndiaye moo ëppale Omar fukki junni yoon Aziz li muy daj ci Omar gisuma benn mi def bu koy daj ci moom kon waxuma la moom rek faneem kon ban ban intérêt euh, et puis damay dégg ñu naan Aziz Ndiaye non xamul làmb dafa doon yéeg ci kaw ak daam Aziz moo doon indi Tapha Gueye non. Mm-hmm. Aziz na ci làmb. Mm-hmm. Aziz Ndiaye gëmewul Balla Gaye nañ ñaaw ji. Mm-hmm. nañ bàyyi wax ju ñaaw ji. ba ci géejawaay. maa ngi koy dégg ay ñoo xam ne gis nga mais nag yàlla yàlla moom mënul def ñëpp bëggandoo ñëpp bëggandoo bëgg mën waaw maa ngi ciy gis ay anci ay ancien gloire di ci xaw wax ay wax yoo xam ne mais ñoom suñuy suñuy papa lañ. Balla Gaye seen doom la bu defee bu bëree naka su dul noonu nekkul si télé nga koy fajee. wala ci inter woo ko da nga ne yow sa doom la. Mm-hmm. woo ko téléphone wala nga woo ko woolu ko mu ñëw nga conseillé ko mais paa ci ay télé affaire yooyu loolu loolu naa sul te mm-hmm. day séq ak ñoom teraanga te kenn du ko yëg mm-hmm. loolu dama fekkee kon am na naa nga wax ko mais pas ci ay internet ak yooyu naa sul te nga ne yow sa doom la waaw ak mooy loolu yenn wax yu sew yi Eh, Baye Fall dafa tàng fu mu ne nii Baye dafa ne xol bi dañ koo xaw a laal noonu noonu. non non non non parce que man xam nga Omar daa am ma toll ci moom <laughs> nekkatuñ ay ay ay ay xarit ay mag rak lañ. Mm-hmm. te moom dañuy jaral ñu dem ba jeex defe naa combat mu desee ñaari jour lañ gëj lañ lañ gëj suñu kër yi. Mm-hmm. Ah, ndax moom mais ko wan mm-hmm. depuis ba ñu nekkee defe booy ba léegi. ñooy ànd ci loolu mu ànd ak ñun ci ngor ak kooku da jaral sa bakkan. boo koy boo koy booy booy booy dégg yenn yenn mooy ñu koy wax te lay leer na lii ni amul non da lay naqari da lay da day laal sama xol. Mhm. billaahi. fu mu jàll na ñi ne 5 avertissement la Balla Gaye numéro 2 jël am na défaite ki nga xam te ne mooy Boy ñaa am 5 avertissement am défaite ballage Gaye ay kaam ne du bëreeg Boy Niang ndax Boy Niang dafa daanu te Balla Gaye lii wokk Boy Niang moo xuri Balla Gaye numéro 2 est ce que Balla Gaye fu mu ne nii mën Balla Gaye amul ku muy bañ ci làmb ji Balla Gaye ba léegi mosoo dégg ci gémminam mosoo dégg ci gémminam mu ne du ma bëreeg Boy mm-hmm. musul mosul am Balla amul kenn ku muy bañ ci làmb ji Boy Niang bu ñu waree bëreeg moom nañ dañuy bëreeg moom mm-hmm. waaw dañuy bëreeg moom jàll ci leneen instant mm-hmm. ay quatre combats lañ am benn bi sa jàll na trois combats lañ tesi sama maam Senghor moo doon naan ku tëb dal ci xal des na benn tëb maanaam ba mu tëbee doon ci Bombardier des na ko yeneen ay tëb fu mu na kii nga xam ne mooy booy Niang numéro 2 moo nekk ci kanamam wala <laughs> Boy Niang moo nekk ci kanamam wala ki nga xamante ne nii mooy Gris Bordeaux instant bi ban combat nga ci gën a gis. Euh, ku ñëw baax na. Balla Gaye moment mooy déraper ni def ko neex. <laughs> Balla Gaye moment bu toll nii bañul kenn ku ñëw ku ñëw baax na ku ñëw baax na Balla Gaye mooy métier bëre mooy métier moom la xam ku ñëw baax na. te ñun ñun nañ ko bàyyi itam nañ ko bàyyi mu nekk si jàmm nañ ko bàyyi. fu mu ne nii boo nekkoon ci wetu Balla Gaye nii nii nii ñu ne beneen combat mu ñëw boo doon conseil da nga koy conseil mu dem defaat entraînement wala mu toog fii Sénégal contact comme ni ko gars yi bëggee. parce que des fois tam foog nga foog ngay dox ci ci ci bëgg-bëgg supporter yi. parce que moom ñoom ñoo tax Balla Gaye numéro 2 di bëre. d' accord naa ak yow d' accord d' accord naa ak yow mais euh, Ndeye ba mu nekkee Balla Gaye ba léegi moo kenn ko wax affaire de entraînement ak ay nangam gis nga yow boo fekkee dendoog Balla Gaye wala yow da nga naan day xaru ci ni muy entraîné billaahi wallaahi tallaahi da nga naan Balla Gaye mii day xaru mus naa ànd ak du ma benn maa ngi jour ànd ak ànd ak moom combat Balla Gaye Gris Bordeaux ànd ak moom euh, wakaam muy entraîné euh, kii fekk ko fa booy bawal saal fekk ko gis mu gis gis ko ni muy entraîné bu paree ba mu paree booy bawal na ko non waxuma la Gris Bordeaux mais yow mii koo téye ci làmb ji warul taxaw. parce que ni ngay entraîné entraîné entraîné dof la quoi. day day rey boppam. kon su ma déggee ñi ñu naan ay Balla Gaye du entraîné wala nangam ak nangam. non daf may daf may jaaxal. combat bi da cee entraîné ba amee ndigg. contact ba amee ndigg buy metti te da ko muñaale bëriwaale ko kan moo ko dégg. da dégg kenn wax ko wala saltal Mhm. mais bu ñu waxoon bu kenn génnoon wax rek ñu ne non bi passé bëri na ak Bombardier ne dafa feebar bii nii ñëw na indi ndigg te billaahi wallaahi taalaahi ndigg lu metti la Balla Gaye Balla Gaye Gris Bordeaux ba nee ginnaaw suba la combat man ba mu ñëwee ba mu ñëwee Omar ba mu dafa gaaree taxi di wàcc taxi avant moo wàcc dafa sonn man man naan sama xel kii est-ce mën na bëre mhm. xoolal xoolal combat boobu mu demee ndax jomam dafa am jom jom lay demee jom. fi mu ne nii ñooñu di xalab Balla Gaye numéro 2 loolu leen hmm, nañ xalab fii moom gis nga yeneen bi sax doon nañ ko def nii mais kii moom xoolal nga xalab day dem nga ñàkk xalab day dem parce que nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp. len ku keneen ku wax baax na mais moom nga xalab ak nga ñàkk xalab benn daal leen daal laa koy ñaan mooy nit ñi li lay waxal ak bi ñuy kii bu yow bu la ci fekk mukk mukk mukk hmm. te moom xam na boppam xam na mooy kan. te ay wax yii yëpp mu tax nga bàyyi say xarit say nit démb. ñi ngay àndal. continuer di ànd ak ñoom. gis nga lii defet kese la defet moo ñëw. defet rek moo ñëw nit ñi di wax mais bul seppi kenn wala def kenn nag non non kenn xamee wala loolu sax. say nitu démb tee leen. kese. fonk say entraînement yàlla defaat ñoomaat ko combat yàlla may ñu dem. te nit ñi tamit encore une fois nañ bàyyi doomu jàmbur ji ñiy wax kii du mbër ak kii dafa ànd na biir beeg nag kontu kontu Modou Lo Balla Gaye am na biir ba mu ko daanee li gis nga wax tudd nañ biir. déedéet. moom mais man man comprendre comme si moom Balla Gaye daal moom 52 défaites la am. mosu fee def dara. Mm. Sénégal nag bu fekkee nii la ñuy dundee ñun suñu dund metti na de. nga ñuy supporté sax dañuy dañuy dañuy fàtte. non ak dund dund si la bokk. Mm. mun naa dund seq ak ni teraanga mu jékki-jékki yàlla def mooy loolu mu fàtte la. Mm. nii la. mais yow mi mbër mi yaa ngi xam sa bopp. yaa xam sa bopp xam yaay kan uh-huh. gën a rayaat sa bopp uh-huh. lii nii Omar da ngay jël wax yëpp jël yu yu yu bon yi mooy loolu wala tànn wax yi uh-huh. denc gën a rey sa bopp xam ne gis ñii nii buñ lay xaraba ak ñi am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd di jooy ndax yow nit da ngay def loolu sa bopp gën a concentré wu sa bopp man di loolu laa koy digal na gën a concentré wu boppam gën a toppaat entraînement mu ngi ci sax mais na ko gën a topp yii nii yi day passé. Mhm. yi day passé. ñun wóolu nañ ko. Mhm. gëm nañ ko te xam nañ ko te àdduna du neex a neex neex a neex. Mhm. bañ bàyyi ko dem ginnaaw mukk mukk mukk xalaatuñu ko. parce que moom wanuñu loolu ko combat bi passé lu rëy la si def. fans club bi mu jëndal leen ñaata nag. jëndal leen ay billets. gan yi jógee Gambie. wala ba waa Balla famille bi waa Sakho famille yi. international ouf fans club yëpp. affaire yi nice ba yaayam woo ma kontaan wax ne lii dafa rafet ah kon nit ñi nañ bàyyi moo tax yooyu su ma koy dégg sama xol bi day du neex quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. billaay wallaay taalaay. Mm-hmm. moo loolu. ci noonu la temps bi ñu mën daf ñoo xaw a xoj waaye balaa ngay kaa tàggatoo rek ban message ngay lancé fan nga xam ne ñëpp ñi supporté Balla Gaye national ak international. waaw surtout maa ngi koy gën a jël affaire bi di ko teg ci président bi muy Assane mooy président international euh, Balla Gaye te fans club ah di gërëm tamit waa Gambie yi defoon déplacement. gërëm Fafa Cissé ak ñoom Modou Wan. gaa yëpp seen indi nañ fa indi nañ biis bu rëy. ah. di gërëm fans club yëpp waa Sakho famille di leen wax ñu gën a jàppaat rek. ñu gën a jàppaat rek kii lii nii du dara yu war a jàll la. nañ àndandoo bokk ndey bokk bàyyi nekk suñu ginnaaw mbër. ñu xam ne moom defal nañu lu ne amul leen luñ ko desel defal nañu lu nekk. nañ ko encouragé gën ko jox courage wax ko ne yow la. te bañ ko jaay di ko wax dëgg. waaw nañ koy wax yow la day bañ koo jay di ko wax dëgg mm-hmm. loolu rek moo fi des mm-hmm. te wax ko mu gën a fonkat ay nitu démbam mm-hmm. xam nga ñun fans yi ñu gën a jàppaat gën a booloo nekk benn géejawaay dem sa kanam bépp mbër nag bu nekk géejawaay am combat yàlla na suñu borom defal ndam Balla Gaye combat yii di ñëwaat yëpp yàlla na ko suñu borom defal ndam yu sedd guy ñun yow lañ gëm mbër yow lañ gëm yaay suñu champion muy tay ak ëllëg defal nga ñu lu nekk instant yii loolu lépp loo defaat rek desit la ay ay kër lépp loo def rek desit la. Mar wàccoo na ak yéen. billaay wallaay taalaay xola daanul 45 fois ñun yow lañ bëgg. Mm-hmm. Aïcha kooku Baye Fall la bu Balla Gaye numéro dama ko jaajëfee bu baax ba fam ba ma zoomee naara ak yow ba ñu naaw fii nii ñëpp dinañ ñu dégg dama koy bëggee bu baax a baax moom baay faal di kontaan ci moom bu baax a baax waaye noonu laa sant di gërëm sama équipe bi Fama Dramé damay bëgg ci yow bu baax Dramé Kanji Socé wala Kanji Tugulóor kontaan naa ci yow Magne Pro kenn du yow jënde cameraman yi loo filmé baaxul waaye 100% assurance damay bëgg ci yow bu baax a baax peace and love ba beneen yoon incha allah.